Bah, salut à tous, c'est Don Mendy. Euh, grosse dédicace à, la page Tectal TV. Voilà, ils font du travail. Grosse force à eux, comme ça, on est ensemble. J'espère que vous si jam. Vous abonner si page Tectal TV. Hein? Ah. C'est très intéressant. baax a baax di ziar waa Tektal TV di wax sama gars yi yéen ñëw follow leen ko waaw liggéey bi nice la ñëpp kontaan. Allez suivre Tektal TV sur YouTube. Merci. Asalaamaaleykum. Euh, je suis Tektal TV sur Instagram et YouTube. Euh, venez nombreux, c'est important. Alors, bonne chose.